Cheikh Tidiane Cissé maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. alors ngay secrétaire généralu euh, béykat yi nga xam te ne ñoo nekk ci bassin arachidier bi euh, tey ji lii ana nan euh, nga gisee rek qualité wu engrais bi. waaw qualité engrais moom fi mu nekk nii ñun mënuñ ko ci wax dara parce que qualité engrais bi mooy que ne ñun mënuñ ko apprécier su lul nga maam ñu dem ci tool yi wis ko ci tool yi xool dégg nga maam gàncax gi nu muy évoluer bu boobaa dinañ xam ndax engrais bi baax na wala baaxul mais lii problème bi rek mooy engrais. ñi ko mën a saytu mooy ñi nga xam ne da nga maam ñoo koy defar au niveau des ICS bu ñu defaree engrais dañ koy yóbbu ci laboratoire yi bu ñu ko yóbboo ci laboratoire yi abord yi titré ko ñoom ñooy xool titre yi ndax titre yi baax nañ buy engrais mbokk nga xam ne quinze quinze quinze la titre bu ci nekk dañ koy saytu xool ndax titre boobu méngoo na ak dégg nga maam li laboratoire bi laaj bu boobaa ñu ñu entériné ne triple quinze boobu dox na buy six vingt dix muy engrais gerte bi aussi dañ koy yóbbu ci laboratoire laboratoire bi xool ne six bi est-ce que titré na est-ce que vingt bi titré na est-ce que dix euh, bi aussi titré na bu boobaa aussi ñu entériné dégg nga maam génne ko bu boobaa nag loolu euh, ci la ñuy xam ne vraiment engrais bi nekk na de qualité bu ñëwee nag ñun en contrepartie ñun baykat bi dañ ko mën a évaluer dans la mesure bu ñu demee ci tool yi parce que am nañ expérience bu ñu ko wisee si gàncax gi rek gàncax gi ni muy soppeekoo dinañ xam ne alors affaire bi nekk na lu nga xam ne peut-être appréciable na à notre niveau mënuñ wax ne engrais bi baax na bala baaxul liñ gis daal mooy fi mu nekk nii ñu toll tembe tembe tembe ah am nañ inquiétude parce que engrais benn rek moo fi ñëwagum muy engrais mboq bi engrais gerte ñëwagul engrais dugub ñëwagul dégg nga maam yeneen engrais yi nga xam ne dégg nga maam moom itam moo moo wër yeneen xeetu njeef yi yu si bëri ñëwul. Hmm. donc loolu problème la donc loolu daal mooy suñu situation bi ñu toll nii. ana yeneen xeetu engrais yi nga xamante ne moom ngeen soxla jamono ji. waaw li ma dégg daal li ma force wéy béy dégg naa ne engrais gerte dafa xaw a manqué ba pare euh, au niveau de l'usine des ICS dégg naa ne oto yaa ngi bousculé wu dégg nga pour yëpp looloo tax dégg nga maam dégg naa état daf leen accéléré sax pour dégg nga maam ñu génne euh, engrais bu bari mais ak euh, situation bi ni mu toll nii bu yàlla ji tawul bu yàlla ji tawee je pense que ne mën nañ accuser retard parce que problème bi mooy que ne fi mu nekk nii engrais bu ñuy defar moom te yàlla ji taw te fi mu nekk nii dafa am yu nga xam ne buñ taxawee te eh, génnul ah, mun na agir te nga maam si suñu rendement donc je pense que ne lii yëpp li ko indi daal mooy ah, dañ leen waxoon ne leen ne ah, bu leen saytu leen seet leen li fi nekkoon ngeen xool ko dégg nga maam defaraat ko ba nga xam ne dégg nga maam li ci war a jot ba si monde rural parce que ñoom dañ dañ jël alkaati yeeg dégg nga maam militaires yi ñu ñëw bu boobaa ñu équilibré équilibrage bu yem moo xam ne ku ci nekk da nga ci mën a jot sa wàll loo mën a bayee bu ëllëgee si biir dégg nga maam bu déwénee dégg nga maam ñu càmbar nag li nga xam ne loolu mooy euh, cëslaay bu nga xam ne dana dëgër dëgër bu nga xam ne dootul nekk lu ñuy réglé at di réglé at hmm. mais finalement ñoom dafuñ loolu mais euh, loolu mooy indi retard bi nekk je pense que ne euh, retard boobu nag vraiment gënul te buñ ko doxalewul ni gaaw nu mu gën a gaawee je que mun na am jafe-jafe. alors justement ci retard boobu li pour yow lan moo ko waral lan mooy euh, retard del li nga xam te ni mooy campagne agricole bi. waaw retard bi li ko indi rek mooy que ne xam nga euh, réew mi tolloon na ci gudde gu nga xam ne gudde gu jafe la ba nga xam ne élection yi fi mu waroon na euh, demee ba sa cappaandaw ba def ko yéex a def loolu nag indi problème bu nga xam ne retard premier retard la mais aussi deuxième retard mooy comme li ma la wax léegi parce que deuxième retard bi mooy. ñoom bi ñëwee ne dañuy jub jubal jubanti mooy ne ñuy bàyyi dara mu jàll te dafa am yoo xam ne je pense que ne si appréciation waroon nga mën a bàyyi mu jàll nga defar ko dégg nga maam defaraat bu nga xam ne da nga waslu àq ci mbir mi mais du nekk lu nga xam ne da nga bëgg a xam lépp bu koy defar defar bu nga xam ne dafay nekk lu lu wër péng la loolu moom ci campagne ren bi mënutoon a am te teel nañ leen koy wax à travers yéen seeni rajo ak seeni télévision mais finalement ñoom bëgguñoon na dégg loolu loolu moo indi à ce que nga maam euh, parce que ñoom dañ bëggoon xam li nekk ci monde rural bi yëf yi delluwaat si ñoom ñu càmbar ko xool lan moo mën a dem ci monde rural bi loolu nag temps bi mu jël moo indi situation bi nga xam ne dégg nga maam moo indi retard bi. yan jafe-jafe ngeen am ci li nga xamante ne rek moo jëm ci wàllum démarrage wu campagne agricole bi. jafe-jafe yi daal mooy li ma lay wax fi mu nekk nii am na zone yoo xam ne ba semaine passée ñoom seen euh, gerte gi nga xam ne moo waroon a euh, ñëw pour mat le matul. boole koog dégg nga maam gerte gi aussi am na zone yoo xam ne ñoom seen qualité gi sax maa ngi gis ñu ngi koy décrier euh, yooyu ay jafe-jafe la mais aussi engrais bi nga xam ne dégg nga maam fim mu ne ngi nii suuf si dafa dee nga xam ne euh, buñ ko amul vraiment duñ yaakaar am rendement yu baax parce que jiw yu baaxul boo ci boolee da nga amuloo engrais te suuf si dee je pense que ne mun na indi ay jafe-jafe donc yooyu daal fi mu nekk nii moom lañ njort ne ah su ko xoolul dana nekk problème léegi nag pour problème mu jiw ñun dañ leen yàgg wax ne leen ne jiw wi ngeen di joxe nii baaxul da ngeen ciy sànni xaalis te ñoom ñu am pexe am jiw yu nga xam ne euh, scientifique yi nga xam ne comme ni ISRA nga xam ne loolu lay saytu defar na ay xeeti jiw yu mat fukk yu nga xam ne seen rendement baax na mu ngi dem ba trois tonnes yii ñoom ay euh, jiw bi ñu am ay cinq cent kilos la donc dañuy perte plus de mille et quelques kilos yu nga xam ne da nga maam ci jiw bi ñuy liggéey par rapport ak jiw bi ñu waroon a mën a am bu xam ne euh, ISRA bu ko multiplier woon ba béykat yi jot si bu boobaa alors réew mi danañ ci mën a jëriñu mu des lu nga xam ne sax dañ ko moo yóbbu à l'extérieur mu renforcer suñu économie te ñoom seen vision lool loon donc je pense que ne bu ñu fi ñëwee nekkee ba ren passé yaakaar naa ne loolu war nañ koy càmbar pour li nga xam ne dégg nga maam moom lañ def comme objectif pour atteindre ko mooy maanaam bay dundee mais aussi jël li nga xam ne dégg nga maam mooy des ñu yóbbu ko bitim réew yaakaar naa ne buñ ko defee euh, ba xoolaat ko càmbar ko ba indi jiwu yooyu peut-être mën na am loolu moom dina mën a nekk. alors amoon na ay dogal nag yoo xam te ne jëruñ gi jëloon na ko euh, jëm rek ci wàllum engrais bi waaye tamit lépp li nga xamante ne euh, jëm na ci wàllum phosphate bi ana nan nga ko gisee. waaw engrais bi moom wax dëgg yàlla phosphatage bi d' abord pour phosphatage bi je pense que ne ren ñoom programme woon nañ phosphatage mais ñoom xam nañ ne phosphatage bi ren mënut a am parce que phosphate balaa nga koy def da nga koy def balaa muy taw nga nga maam nga dóor phosphatage xam ne bu tawee da nga maam ànd ak suuf si dem parce que phosphate. du nekk lu nga xam ne ngelaw mun na koo yóbbu parce que moo xaw a dafa xaw a diis donc boo ko defee alors mën nga koy def ci noor bi mbala ci buntu nawet pour mu mën a am mais léegi fi mu nekk ni ta dem maa ngi dégg sax ñuy wax ne alors dañuy jël jeunes yi mobiliser leen pour phosphatage mais ak lu mënta xew phosphate moom ren mënta am euh, engrais bi nag moom wax dëgg yàlla ñoom am na lu luñ ci wàññi mais wàññi bi aussi liñ ci gis mooy inconvénient bi mooy su ko wàññeetee bëriwul aussi mun na indi beneen problème bu nga xam ne euh, Euh, parce que lu bëriwul te nit ñi di ko laaj bonk ñu koy indi bu boobaa mën nañ ko seeral parce que ni mu ko subventionné am na doole te usine bi nu mu fay génnee seer na seer bu nga xam ne buñ ko subventionné wul da nga maam baana baana yi mbala boog euh, homme d'affaires ko ci usine bi bu ko indi bu koy jaayee baykat yi dafay mel ni kon subvention bi dafay riiraat presque parce que baykat bi boo ko joxee ñaari saako yi engrais te mu war a jënd juróom yi teg ci muy juróom ñaari saako bu ko jëndee ci yenn prix presque subvention bi ñu ko defaloon presque dafay réer. alors euh, jamono ji nag ndax euh, béykat yi fi mu toll nii am nañ ay outils yi war yi nga xam te dinañ mën a ko jëfandikoo ci seen liggéey. waaw outil moom fi mu nekk nii béykat bi moom bu amee bu ko amul fi mu nekk nii pare na pour dem ci tool yi parce que ñu si bëri fi mu nekk nii euh, commencé nañ dem ci tool yi sax parce que am na zone yi nga xam ne taw na ba nit ñi ji nañ moom presque gerte moom ñu ci bëri ji nañ ko mais zone bii moom dugub moom pare nañ ci ba pare. fi mu nekk nii nag yàlla ji taw taw bu yaatu rek dégg nga maam ñu mën a ji gerte ak mboq parce que gerte ak mboq dafa laaj taw suuf si tooy xepp pour nga mën koy ji parce que d'abord mboq moom nanguwul euh, lu lu lu lu amul taw mais gerte aussi cher na cher gu nga xam ne nit ñi mënuñ koy asaaloo noonu di ko ji muy yàqu pour ëllëg ak si biir nga bugg koy jëndaat. Mm-hmm. donc ñaari situation yooyu je pense que ne mooy nekk lu nga xam ne fi mu nekk nii moo nekk ci monde rural bi te yaakaar naa ne bu tawee fi mu nekk nii béykat bi am na pour mën kii. pour motorisation bi nag nga xam ne mooy petit matériel bi waroon nañ koy joxe mais joxewuñ ko ba léegi petit matériel bi joxeguñ ko mais aussi euh, mm, tracteurs yi nga xam ne moom la ñu waroon joxe depuis deux ans ci gannaaw ba léegi mu ngi traîner je pense que ne yooyu tim aussi ay jafe-jafe la yoo nga xam ne bu ñëwoon dana gën a renforcer monde rural bi pour ñu gën a mën a liggéey. ana ban message rek nga am looy lancer gouvernement bi. message bi ma am daal mooy fi mu nekk nañ fexe ba nga xam ne li fi nga xam ne dégg nga maam moo manqué ñu gaaw daf ko yàlla may na may na nag euh, ba nga xam ne. taw bi taxaw na mais fi mu nekk nii ni ma déggee usine ba ak ni mu manqué ak dégg nga maam oto yi ni ñu ni ñuy buuxantee foofu je pense que ne ah bu ñu deful ndànk dana am tolof tolof parce que fi mu nekk nii engrais gerte dégg naa ne dafa xaw a manqué te usine ba fi mu nekk nii ñu ngi leen forcé pour sax pour ñu daw mais booy forcé nit muy daw ci digg nawet bu boobaa presque tardement dafay am donc je pense que ne daal fi mu nii nuñ mën a def daal nañ ko def dégg nga maam pour yëf yi ñëw xam naa nag ñu ngi góorgóorlu mais du yomb daal fi mu nekk nii moom. alors Cheikh Tidiane Cissé jërëjëf may fàttali rek ne yow yaay secrétaire général u euh, béykat yi nekk fii ci a arachidier bi ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax. merci jërëjëf.